yéene woon nañu lopp lool nag li ñuy wax ñaari téeméer ak juróom fukk la ci wolof ci million di deux cent cinquante millions ah dañ maa def jëwriñ ci kanam waaye jàppal ni ñoo ma gën a ëpp Pastef ñoo ma gën a jub ñoo ma gën a ñoo man ci liggéey bi danaa ci cité ñenn rek ku mel ni sëñ Abdoulaye Jam yi ak sëriñ Seck mi ak sëriñ Pape Fall mi ah, ak Mbacke Samb mi ay nit la ñu yoo xam ni euh, bu ma nee bu ma téléphoné nangam rek dañuy mel ne ñoom dañuy daw ci sëñ bi la jëm ak sëñ Ousmane Ndiaye Sambos mii. lépp loo xam ne woote naa ci euh, dañuy mel ne ku may puus lii lii sëñ Ablaye mi xalaatam la man xalaatoon naa ko waaye dafa tukki France la ma wooyee alxamis ay quatre heures 16 heures fekk maa ngi añ ba pare ni ma mbay war ngaa yëngatu. ndax ci mbënnum Tuubaa mi nga woote ci nu jëf ca dem ca kanamu sëñ bi teg ko ci loxoom mu ñaanal nu nu dellu ca waar wa ba mu fa jógee quatre ma dem sama bureau laa toog mooy passif gi nga xam ne moom laa la wax am nañu ko seize heures avant dix-huit heures li ñu dajale jege na téeméeri million ci téléphone rek ci yoon wi sax am nañu ñoo xam ne fi ñu ngi woote di joxe ñu ni ma nag nan dem yóbbu ko ajjuma naka tey bu nu jullee takkusaan ba pare. teewlu ngeen teewlu sëriñ bi seen xol yi yéen a ngi jàkkaarloo sëriñ bi teewlu googu man man moom laa gis teewlu googu nag moo moo moo moo rëy man lool eh, waaye nag damay damay damay teewlu man itam eh, yàlla mi ko def ci yéen mu dolli leen ko. te bu mu dañ mukk di leen ko dolli ba keroog bis ba fa fa fa fa ñuy wane eh, ndam ya eh, sëñ Tuubaa eh, di fa damoo loolu foofu rek laa leen xool loolu foofu rek ndam ndam loolu rek la leen yéene ndax lu bëggal sama bopp rek man man man ma waxaat ne yéen laa ci jiital yéen yéen a ma gën a sama bopp wala ma jiital leen ci loolu loolu moo loolu leen nekk man ndax ndax bëgguma dara lu bi wutuma dara lu bi te lu ci am yéene naa yéene naan ko lu ma ci bëgg rek bëggal naa leen ko kon nag jërë ngeen jëf